te te pour en revenir man waxuma sénégalais dañuy résigné dama ne bi ñu jàppee Ousmane Sonko nit ñi génnuñu manifester l'opinion dafa dafa diviser et la preuve que euh, yéen fi ngeen nekkoon erreur la et que yeneen sénégalais yi ñoom ñu ngi continuer ci seen ci seen engagement euh, gëwuma ndax ñi ànd ak Ousmane Sonko dinañu woteel le le candidat de de Macky te gëm naa ne bu Ousmane Sonko demul élection ñi ànd ak Ousmane Sonko ils feront tout pour faire tomber ce ce régime là ça dire que ñi ànd ak moom tey aujourd'hui dañoo résigné wu dañ nekk ñu ci violence nekk ñu ci discours violence ñu ngi toog di di xaar ñu ngi continuer di wax di di yee sénégalais foofu lañ leen doon xaar peut-être mais à un moment donné l'opposition a piqué la grosse tête damay da wax benn benn un opposant sax mu naa ah, ma mais yow ñun bu ñu ñëwee ci nguur gi nii lañ lay défend ah. xam nga may mun a un opposant qui te dit bu ma ñëwee ci nguur gi y a plus normal parce que mooy rêve am mooy ambition ba <laughs> moo tax ma ne la dans une démocratie conviviale nit ñi yooyu dañ ko mën a waxtaane di di reetaan opposant mbaa xam mais ñu toog di opposé ba pare naan ñun dañuy duñu fi mës a ñëw ci nguur gi. waaye boo ñëwee ci nguur nga am yéene bu baax. mais yéene bu baax boo ñëwee ci nguur bi nga améliorer suñu condition de xam nga waaye nga ñëw ci nguur bi indaale vengeance ak rancune xam nga moo tax li ma la wax. c'est-à-dire que démocratie loolu dafa jeex ci réew mi malheureusement su fekkee sax mës na fee am et c'est dommage peut-être que ñun gëm nañu ni war nañ ko fee indi réew mi tey dañu dañu les gens sont très angoissés dañu dem ba créer beaucoup de frustration et de rancœur. angoisse frustration rancœur angoisse un peu partout ñun on veut un pays apaisé convivial. a à a moment donné nekk leen woon ci apaisement de. man man dama lay jëw sax papa. non man man du ma jëw parce que yàgg naa dégg ko yow da nga naan Cheikh bis bu ne nga wax wax nañ ma ko li ma may mun a wax nañ la ko wax nga ma ko yow sa bopp. Abdourahmane ma ne ko ma ko ton na mi laa. képp ku ma xam ku la xam ma ne man man nee naa leen da ngeen man nee naa leen à tel point may mun a jàpp na ne dañu radicalisé ba nee na sax dootuma leen invité ma ne loolu baax na bés bu ma bëgg kii rek danañu ñëw toog waxtaan mais c'est pour te dire may mun a xam nga réew dafa am yoo xam ne moom moo jiitu lépp man tout mon combat a été un combat de principe. ñuy def yi je me suis au niveau de l'éthique dama ni réew nan lañ ko war a yoree moo tax je pointe toujours le pouvoir parce que yéene bi mu am foofu la nekk ñoom ñoo ko mën a def président Macky Sall bu ko neexoon à partir de suba ak li ko dese fii ba deux mille vingt quatre ñuy dem élection mën na fi def climat boo xam ni ambiance politique et électorale boo xam ni dañu naan est-ce que mënoon na nekk ci temps bu gàttee nii ci moom rek la dépendre bu ko neexoon suba mu xëy mu ne bàyyi naa affaire politique politicienne mon camp j'ai choisi un candidat nañu débrouiller wu en tant que parti je restaure le Sénégal bi ñu bëgg ak ni ñu ko bëggee woon Ousmane Sonko leader de l'opposition qui a encore ses droits man loolu laa gëm pour être candidat à l'élection présidentielle de 2024 am na pexe moom ak son ministre de la justice pour le laisser sortir retourner chez lui retourner chez lui réanimer son parti parce que parti bi jaarul yoon ni ko tase dama lay wax rek yi nga xam ni mënoon na ko mais loolu dafa laaj énormément de hauteur xaw ma ndax am na comme déet mais mën na ko bu ko neexee bàyyi ko bàyyi parteem ni Sénégal bëgg naa bu ñuy dem 2024 di changer parce que lu fi mësul am moo fi am président bu génn te nekkoo candidat kii ñëw ci sa parti ku bees la opposition ku bees la mu ni dama leen di mettre à chance égale pour la République et pour le pays. on a pour, ça pour la pour le pour le pays et pour ce qu'on tend à devenir on va être un pays pétrolier et gazier yàlla dinañu indil koom moo tax ñoom dañu ñàkk ambition ba ma déggee ñuy wax yi ñu ci am ma ne vous n'avez rien compris ñun suñu projet politique de bu dee yàlla loolu la ñu indil balaa juróomi at jëm fukki at le Sénégal dañ naan comme ñu ñoon waxee le miracle des pays des dragons asiatiques dañ naan le miracle africain Parce que le pétrole ne sera qu'un outil de transformation globale de l'économie. Tous les secteurs dinañu dynamique. Mais loolu pour nga dem ci da ngay am un consensus national. Sénégalais yi bëggante yéenante jàmm. sa invité bi fi jógee. bi ma ko fekkee ci plateau bi maa ngi koy nuyuwaat. sa kanam dañu laxasoo Pape Sagna Mbaye il est de, du pouvoir je suis de l'opposition dañu ñëw laxasoo niyonte waxante lu rafet parce que dañ ko séq parce que daf may séen yéene ma lu baax dama bëgg tey man képp ku nekk APR ma yéene la ko te loolu laa leen yéene mais ñoom dama bëgg ñu yéene ñu ko que képp ku yeewoo APR a commencer par le président nga yéene Ousmane Sonko jàmm bul ko yéene mu dee bul ko yéene torox bul ko yéene mu disparaitre gis nga bu amee dinaa la garantiral te loolu laa la doon wax bi may mujj wax ak Ousmane Sonko on était sur cet état d'esprit dañu naan ñun li ñu yéene Sénégal amal ko ko ci générosité ak projet ak pexe pour changer ko wallaahi bu ñu fi ñëwee lu dul yittey sénégalais yi ak seen nooflaay ak lu leen di yóbbu duñ ci nekk. mais mais yàlla xam na loolu mais loolu may mun a. man mënu ma ko def Macky moo ko mën a def. yaa ngi naan mais dimbale leen ñu ci Macky Sall yéen ñii. ngeen wax ak moom ci côté boobu. non il peut le faire